Germano Money Transfer Bureau Directions, your go-to option when it comes to money transfer. With Germano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Germano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and approved services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info at germanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733 our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Yamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Yamano Money Transfer. Alright. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria, or Mali. Baluo, better than sending money. no, hey, jeguba, mooy am kër gu baax nga jegu baax bu toogee dafay neex kon solaale ko daagul ba muy moom cuuraay bu neex jeg yee ko moom jeg lu mu nar bu ko defee ñëpp di rekontaan mooy jeeg na saf-saf kër Fatou jeeg na saf-saf kër gi day neex kër Fatou ñëwal jeeg na saf-saf bu kër gi day neex comme ñuy seetaan ginnaaw bi ñu santee yàlla sëlmal ci sangu-sang yi tubaarkàlla macha allah gis ngeen tey ni ma leen ni ma leen li ma leen indil xam naa ne fu mu nii fi ngeen toog noonu xol yaa ngi neex maa leen ko digoon te dig bor la ndax fan yële macha allah damaa def euh, affaire yi patak organisé indiw ma bongo waaye diggoon naa leen ko moo tax na indi naa leen tey ñaari bongo indi leen say njaay mi nga xamante ne mu ngoyaanee mu neex tubaarkàlla di sama xarit di sama doomi ndey di madam ka indil naa leen ko waaye la balaa ñuy def loolu yëpp damay nuyoo di nuyu àdduna di nuyu euh, ñuy seetaan di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu waa réew mi nag tubaarkàlla ñu ngi fii kër Fatou ak jeeg na saf saab kër gi day neex waaye dinaa bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo tëdd ci hôpital yi maa ngi leen di seet yal na yàlla fëgg seen bopp ba ci nekk jug dellu ci sa njaboot waaye maa ngi bàyyi xel tamit ñi nekk ci prison yi <coughs> di leen seet nee leen prison ña baax loolu ña nga fa waaye ña safaan ña nga fa mm. waaye at lu mënta doom yàllaay borom jaam yi yàlla yàlla dafa jàmm mm. ba ku ci nekk génn delluwaat ci sa njaboot di ñaan yàlla sàmm yàlla aar ñu ñu nag fu yàq àggul di ñaanal Fatou mi nga xam ne mooy borom kër Fatou am jom di jigéen tubaarkaal nanguwul liggéey takk ndigam kooku it ma maa ngi koy bàyyi xel ak tamit di seet sama doom yi nga xamante ne ñoo ne ci caméra yi yàlla dafa leen jàmm ah macha allah fàttewu si ñoom Kasa ñoom Lucinda tubaar fa kàlla ah, kër faatu nee naa jàmm asalaam rek waaye tubaar fa kàlla nag junjum rëkk na gar mi day waaj maa ko digoon nag tey jii wax ji sax du bari tey daal damay fas yéene bégal ci ay ngoyaan ci ay taasu ndax dañu jóge ci weeru koor suukar koor yi sama jeeg ñi gis naa ku ne ñëw na ku ne yónnee na ñoo ñu tey ñi xam ne laa sekk ak jàmm ak teraanga ñoom laa fas yéene bégal tey jii ba dëkk bi yëngu seen yaay mm, maa ngi nuyu yaay kër faatu ak jeg na saf-saf kër gi day neex fii nag yaakaar naa ne doo fi gan déedéet waaw yow nag looy looy nuyoo ah Bintu mu ngoog maa ngi nuyu ñëpp wax dëgg ne yàlla ku si nekk turam ak santam di ñaanal waa kër faatu jàmm ju bari ak yokku bu baree baree baree baree ak xale yu fay liggéey yëpp di ñaanal suñu waajur yi di ñaanal ñu tëdda si hôpital di ñaanal ñu nekk si kër yi Mm-hmm. macha allah yal na yàlla def jaama si réew mi di ñaanal suma jëkkër jooju noonu kapp la jéeri di ñaanal sama yaay bu nga xam ne mooy suma waajur moo ma jur macha allah. Mm-hmm. di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gi yaram di ñaanal suma rakkayee suma magi suma mbokk yëpp macha allah bàyyi ma kenn di ñaanal waa Gambie yëpp daal. dëgg ma ne ko Gambie lañ am ñu bëgg ñu lool suñu géer ñu baax ñooñu. dooleel ñu bilaay loolooy dëgg waaw man mi bintu ko yaate fa laa fa laa jugee waa parce que Manikunda mm. sama baay fa la juddoo mm. tubaar fa kàlla man moom dañ naan bintu Gambi mm. te am nañ droit wax ma bintu Gambi wallaay ndax euh, dëgg la euh, Sénégal laa juddu waaye nag Gambi gii laa yaroo te yaakaar naa ne am maa ngi fay bëgg am forty years fii ci mm. biir dëkk bi kon nag tubaab fakal la nga xam ne yàlla boole ñu fekk ay nit ñu baax mm-hmm. euh, ñoom it di leen wax ne jërëjëf ndax ku jënd sa connexion waaw YouTube bind kër Fatou Média. waaw saf saf bintu ko ubbi di ma seetaan. Mm. yow loo ma bëgg a bëgg man maa la raw. kon nag mbir mi ay bëggante la. Mm. tubaab fakkaar la moo tax tey nag ma fas yéene leen bëggal leen ci ay ngoyaan maa ngi toog ak nag ah, Am Diagne ah macha allah séeri daba séeri daba Cissé mi ngi noonu ànd ak rakam di sama mm. càmmiñ bu baax tubaab kàlla moom tamit di bongo lu neex a neex a neex kon sëy balaa ñuy dugg ci waxtaan bi mm-hmm. bëgg naa nga nuyoog jeeg yi mm-hmm. ah ak kër Fatou ngoyaanal leen lu neex a neex mm-hmm. sama càmmiñ nag daal di lay gunge dëkk bi yëngu yoo doxal ma lay xool maa nga romb ma lay seen ooy bi laay jéggi Gambia jéggi bi yaay péele romb ma lay xool waaw nga daagu lay seen ngeen ko nag xamante nañ barke yonent bi tubaar fa kàlla ah lii la géer mënal géwal mënal géeram ndax tubaar la ñu ne doomu géwal dafa war a bëgle mm-hmm. macha allah loolu la yàlla dogal moo tax woy bi ñu turee ko ñu ubbee ko ah, Fature borom kër mm-hmm. Fatou tubaar la teg ci na doomi ndeyam ummi sekk waaw borom gamtel loolooy dëgg mu sekk sama xarit baax gën loolu nag tubaar fa kàlla waaye Sally Seck kenn du moom borom national assemblée borom suukar koor bu bari bi si man ak ma bëgg ak ma bëgg ak ma yéene barke yonent bi man nag Bintu Gambi man aw ma noonu ñëpp ma bëgg loolu dama si doole sant yàlla bu baax may bëgg ñëpp ñëpp ma bëgg loolu la yàlla dogal moo tax tey jii ma indi leen bongo yi ñu fas yéene koo ruq ba mel ni suul ak ba jëkk barke yonent bi macha allah kon nag euh, Sey Ndiaye. Mhm. yaa ngi way du neex. nii macha allah yal na yàlla wéral baat bi. amiin Ka. waaw waaw waaw te nee na yow a. waaw waaw tëdd ba guddi. waaw xelam dem ci yow. waaw waaw mu naan la seen njaay. Mhm. na bagage yi dugg. waaw <laughs> di dugg di dugg ba ci féeri ba. <laughs> maa tey nii laa wax. waaw bu ngeen la. macha allah tey damaa bëgg nag kon nga ñëwoon ma ci Makutu Konté. waaw ah séeri Ibrahima Sawane. Mhm. ku baax moom it doomi ndey Fatou la waaye Makutu sama mag la sama xarit la yéene ma loolu bëgg Assane Kouyaté bëgg Ousseynou Kouyaté. tu nek amerique di liggey di daan dolem waye baax na ci wërsëgam lol nak bax ci wërsëgam macha allah Seri Ibrahima Sawane. Mm. wa dama bëgg nga ñew ak mak mom fofu mu daal di kontaan tey nee naa wax wax bi du bari tay ambiance rek lañuy def. loloy deug wa ambiance tay mom ah am. tay mom fi nan la leen vampire. mala wax lolou iyo mana ma koto yar nga mana personnalité. waaw ah doucement tempo tempo nañ leen ko waxtaanee na nooy rek ñu waxtaane mbaadu waaw na nooy rek looloo foor xam naa ne yaram yi tàng na waaw waaye na nooy rek ñu waxtaanee ko maa kuti konte yaa moom loolu jigéeni Wally Seck Seri Ibrahima Sawane jeeg bu riis doomu ndey Fatou Touré maa kutu yow luñ la way doyul ndax maa kutu konte yow loo mayee yaa ko moom tubaarkàll masàllaa Amérique goo nga nekk danga faa jël say mbokku Gambiens say mbokku sénégalais ñuy liggéey yow nga baax loolu yaatal kon nag lii ñu way nag yaa ko moom tubaarkàlla fan yële ay waxtaan laa doon ñëw ak yéen di waxtaan ak jeeg ñi ñuy delloo si seen xel yi waxtaan ak góor ñi ñuy delloo si seen xel yi la waaye tey nag moom ambiance rek nag tey moom ambiance rek ndax maa leen ko digoon te dig bor la tubaar fa kàll macha allah kon nag junjum rek na gan mi day wàcc mm-hmm. Sey Ndiaye. waaw tubaab macha allah kontaan naa sama doom ndey. Mm-hmm. ndax yow lépp loo way rek ci sa xol nga ko tibbee. Mm-hmm. di la ñaan yàlla sàmm la yàlla aar na ndax li ngay way neex na loolu. waaye Sey mm-hmm. Ndiaye. waaw tubaab fakal macha damaa bëgg nag nga ñëw ci ajaaba ndax ngelaw bi ngelaw bi liw bi liw bi. sama émission bii may def Kër Fatou day jënd connexion bu doy di ma seetaan di jël sama émission di ko siyaar. Nan ma bintu dama bëgg a view bari tax yow li ngay wax yaa ñuy jappalé dañ lay seetaan dañuy déglu te ajaba moomu daf maa yàgg a jàppale tey su télé di wax mom la daf ma naan ne bintu jël sa téléphone bi di wax ak sa génn kon koku ma defal lool tay ba yëpp yaatal duma tok toog kër faatu def sama émission ba paré ta duma ko bégal séeri paari na bileen yaay abi bileen yaay ndey roxi yaay tabara bi leen yaay ibrahim bi leen séeri mouhamed ajaaba kon xam nga kër gu amul aawa fanaan fa risque la oto bu amul permis dawal ko risque la tubaarkàlla maasàllaa bëgg nag nga woyal ma ko woy bu neex ajaaba séeri pa René gorom nag di tabara bi leen ba nga duggee si kër gi ba léegi si ajaa dag neex boo fekk aawa daal xarit yi jëkkër lay doon ba nga duggee si kër gi ba léegi si waaw waaw. jàppale ko. macha allah dem yóbbu ma. waaw lu mu am may ma. ajaa dem ñëw ma expliquer. Mhm. ajaa ba sama xarit la sama giir la waaye sama doomi ndey la. jëkkëram ju baax jooju tubaab fakkaat la macha allah yal na la yàlla bàyyi sa sa nga bëgg sa goro tabara bi sama xarit la. tubaab fakkaat la yow sa goro man sama xarit la di tabara bi leen. Mm. jéeg bu riis borom nokkalaay na Amérique. yow tabara bi leen nee ba ngay dem Amerik ben jéeg demu tubaar fa kàll macha allah tabara bi leen moo fi njëkk jaay oto ci jigéen ñi di commerce tubaar kàll macha allah lii yéen a ko moom ndax da ngeen maa bëgg di ma seetaan sama émission di ma si jàppale naan ma bintu xëcc bu daggul dina yow jàppal rek kon nag yéen tubaar fa kàll fu may waxee lu baax dama leen ciy boole nag di kontaan loolu ndax émission bi may def yombul wax ci tele yombul ndax nit ñii toog di wax dañuy waxtaan ak jeeg ñi waxtaan ak askan gi waxtaan ak góor ñi mais di nga wax sa wax góor jël ko wala jigéenu wat jël ko moomale ko boppam te fekk waxtaan la rek kon tubaarkàlla macha allah loolu dama ci dolli sant yàlla bu baax ndax duma wax ni àdduna bi maa fi dàq wax waaye yaakaar naa ne am na ñoo xam ne su ma waxee dañuy toog di ma déglu kon nag ñooñu su may bëgg dama leen di bëggal bañ kontaan li ma wax rek man Bintu Gambi ñëpp ma bëgg aw ma noonu tubaar fakàlla bëgg ñëpp ñëpp ma bëgg barki yonent bi macha allah ah am am am bongo. Mm. li ngay bongo neex na. waaw li ngay bongo neex na lool nag macha allah te sa bongo bi am nga ci jom am ci fulla nga am sa jabar tubaarkaal di ko toppatoo. doxoo dara ñàkk fayda tubaar fa kàll yow sama càmmiñ nga macha allah waaye nag sëy Ndiaye. waaw Bintu. damaa bëgg ñu dem ci Sirandu soxna borom Amérique kooku ajaratu takku jàngoraay yaayam. Mm. ma Lamin soxnaay bayam Ibrahima soxnaay bayam Soraxata soxnaay maamam. Mhm. alkali Dumba Dibakunda ñooñu alkali alkali Dibakunda borom titre français ku ñu dakkal dekk mhm. sama xarit sama njëkk sama giir tubaar ma sha allah. Mhm. ñëwal ma ci mom nu tuda sirandu Soxna. seri Saayibu. koku tammi ñaaral la de. waaw ay ma demba safar ga canga yande kuy raay ndaa kuy raay sama doom jeegi nii ayoo ee waa koñ bi kaay leen xool ngeen kan du jàmm fi yónnee nee naa la bégal dina am sax nee bu ma taasoo ma dem waaye ma fenda du woyu du bànni xam nga koy woyu sirando sirando yaay woyu yaay bànni ñaareel xaritu jëkkëram waaye penda dafa yaru nag baadu waa penda moom yaayu sirando la bëgg sirando soxna yaru lool sama saraxule bu ñaawul bi mm. sama saraxule bi ko soronto mbaajam mbaadum ko akira jam mbaajam mi ngi noonu yaa moom loolu tubaar fa kàll masha Allah kontaan rek nee naa yéen a ngi fii kër Fatou at jéeg na saf sàpp kër gi day neex baat ki bi nee naa leen nag dig bor la maa ko digoon nox tey ma def nag ambiance kese ambiance rek tubaar fa kàlla di leen wax ne nag kontaan lool lool loolu di leen wax ne nag ah balaa ñuy tàggoo sëy mhm. macha allah egg na ci coppaandaw gi mhm. ah macha allah way neex na ah, am kontaan naa macha allah mhm. lii rek laa ci buggoon lii rek laa ci bëggoon ndax euh, temps dafa seer temps dafa seer jamono fi mu toll kenn amatul jot waaye ba ma leen woowee da ngeen bàyyi seen lépp euh, def seen déplacement ak dérangement ànd ak man ñëw man ci sama émission bi di ma ci jàppale kon nag di leen ñaanal di ñaanal tamit waa Dibakunda di ñaanal waa Basse Mané Kounda ah waar fakal euh, kullim juum mbaa doo matal euh, di di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di wax na yaakaar naa ne euh, li di taasu xol yi taasukati naan mbaa xol yaa ngi féex xam naa ne tey moom kontaan ngeen ndax maa leen ko digoon sëñ Ndiaye mhm. nga tàggoo am tàggoo ñu daal di jox gars yi dig daje ba beneen monde yi bintu Facebook mhm. ku ko tàddale demal YouTube def Kër faatu Média émission yaa nga fa ngeen tànn bu leen neex def ni ngeen ma daan defar rek. def like bi def aimé euh, commentaire dina ma neex. loolu loolu dëgg la kon ñu ngay gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal suma jëkkër jooju nga xam ne ma dooleel di ñaanal suma xale yi fan bu gudda wér gi di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu waa kër. kër ga ma dëkk macha allah mm -hmm. di ñaanal waa Latrikunda jaamaan ñaanal mm -hmm. di ñaanal sama géer ñoo ñoom Adja Ngom macha kunda waa Latrikunda waa Mbadianeen waa Caameen man ñëpp ma bëgg -hmm. wax di ñaanal ñoom si Kunda sama yaayeeg suma mag yeeg suma xarit yeeg ñëpp macha allah ku rek juum dëgg la am looloy idega am yo looy tàggu di gambe Gambie na nag na ma sha allah man ñëpp ma bëgg gambe la ñëpp ma lañ am waaw am lo tàggoo yal na fi yàlla def jàmm waaw nga joxe sa numéro ku la soxla waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonante bi sant suñu ñaari waajur mhm. di la sant yow Bintu di sant sama soxna Daba Cissé ñu toog di ma muñal di la sant yéen ñu àndal yi émission bi nice na lii dafa nice mhm. parce que jigéen kuy sëy bëgg na ko koy ñaax ah, di ko wax ci ay ay sëyam mhm. en tout cas affaire nice la bànjul nag moom bànjul ñëpp la te yow nekkoo fi rek di yàq gàmbi bu bëgg maan yëpp meloon ni yow ñëpp dina man yéen laa am dina neex yéen da ngeen baax yéen géwéloo bintu mi daal du géwél laay mooy laaj suñu mbokk bongo ah, waaw na la Banjul léegi ñu bëri respecté woon bongo man ndax bu ñu xëyee ma woo du ma fa ñëw bintu dawet noonu nga mel yaay sama mi daal du géwél laay moo dàq suukar dañu xoromoo si géwél liggéey Sira nga may ma one minute rek ndax dama fi indi woon euh, xorom polle bi indi fi sepp bu gàtt bi indi fi euh, euh, xorom polle ak laurier nee naa leen baax na si jeeg ñun jeeg ñi lii dafa baax si ñun indi woon naa ko bale passé waaye tey moom ambiance bi ma leen dig moo ma dugg ba nga xam ne sax fàtte naa waaye ba tey rek nee naa leen nañ koy baxal di ko naan ah suñu gisee baax ba pare nañ koy naan dinañu setal dinañu raxas dara bi nga xam ne tamit dañuy sonn ñu jigéen ñi laurier xorompolle ak euh, sepp bi baax na ci torop nañ ci farlu bu baax a baax a baax bu ngeen ko defee rek da ngeen si gis njëriñ macha allah kontaan naa ba ba Monday bii di ñëw belli jéeg na saf-saf safaate ko sóor ey jéeg bu baax mooy am kër bu baax na jéeg bu baax bu toogee dafay neex kon solaale ko Germano Money Transfer Bureau your go-to option when it comes to money transfer. With Germano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Germano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Megabank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and approved services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info at germanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733 our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Yamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Yamano Money Transfer. Alright. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. Yes, but... Don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluo, better than sending money.